mbokki internet yi nga xam ne yéenay seetaan NG TV ñu ngi leen di nuyu wax ngeen dal ak jàmm abonné leen suñu chaîne activé cloche de notification bi ndax vidéo bu dugal ngeen man ko gaaw jot tey jii nag euh, euh, ku ci yeewu euh, xool li nga xam ni moo di réseaux sociaux lu ci mel ni YouTube yéen a ngi gis ñi publier fépp naan ki nga xam ni moo di Cheikh Diaby nekkoon journaliste foofu ca 2STV. dafa ñàkk bakkanam ngeen baal ñu ci kàddu gi waaye noonu la ko ñu bëree bëri waxee mu nekk lu ñaaw loo xamante ni euh, kenn xamul poisson de Afrique lan ko mën a tuddee kenn xamul luñ ko mën a tuddee waaye lu ci man di am moom mii di euh, Cheikh Dia moom daal daal dina ci àddu moom xam leen ne daal lii ñaawlu na ko ba fa ñaaw li am waaye tamit euh, mi ngi menacé ne moom daal dina def li nga xam ne moo de porte plainte contre ñi nga xam ni ñoom ñoo publier li nga xam ne moo di information bi nga xam ni ay fausse nouvelle ay xibaar yoo xam ne dara wéru ci ca moom ba tey moom Cheikh Dia mi nga xam leen daal moom feebar sax defu ko mi ngi sant bu baax a baax dara dalu ko lii nag moom euh, ñaaw na ba fa ñaaw li yam da ngay gis sax ñuy commentaire di ko ñaanal yàlla yàlla yërëm ko nga xam ni yow bu fekkee da nga rek taal sa connexion dugg ci internet bi fekk ñu defal la fa xibaar boo xam ne amaana ñu ko def sax ay vues lañ ci bëgg wala dara mu nekk loo xamante nii lu ñaawa ñaawa ñaaw la bu dee ñu ko gën a jege wala ñi nga xam ne dañ koy safoo nga xëy rek ñu la eh, diw ñàkk na bakkanam ci loo xam ne daal yow euh, xamul nu ko mën a tuddee kenn xamul poisson d'Afrique la kenn xamul daal ay ay sos la wala mu nekk lu ñaaw lool lii moom war nañ koo bàyyi moom wax dëgg yàlla ndax wax lu dul dëgg moom premier avril ak premier mai deux deux rek ak euh, cent janvier ci am mois bu mu si doon wax lu dul dëgg moom dafa xaraam waaw fen li muy li muy ndaw ndaw liñ koy xeeb baat bi liñ koy xeeb xeeb xeeb moo gën a rëy njaalo li sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum daan wax euh, euh, nit saay fenee rek aras yëngu na nga dégg nag ñuy fen nga dégg nag euh, des fois ñu di ko soofantal naan ah diir yaa ngi fen waa yaa ngi yëngal aras ca fen mbokk yi lu lu lu garaaw la mooy wax lu dul dëgg yàlla nañ si musal waaye li daal moom nekk na lu ñaaw nag moom ba fa ñaawal yem ba tax na moom daal mi ngi dànkaaf que ne moom dina porter plainte euh, mboolem euh, média yi nga xam ni daal dañ koo partagé que ni moom dafa euh, ñàkk ba kanam ñu koy ñaanal yàlla gën a guddal fanam may ko wér moom Cheikh Dia bi nekkoon foofu ca 2STV yaa ngeen jëf ci ànd beeg ñun way leen di abonné wu fii ndax dafa jotee ay xibaar yu wér te wóor caa ngeen jëf.